mu yëf amul karaw bu koy diisal ba tax mu yeexu ndox nee na neexa dawal njaabam rafet ma naw ko naw bu wér te sax ma ñal ko caw ko tey ba yam ràmbal ko tànk yey lu jax di baxru bii ma sóoru tey ma ji a jax ca laa ko wax mustafilun mustafilun jàkkeer la tey dinaa ca jax te ñëkk sant yàlla buur julli ca suñ yeneen ba jox islaam julli ca suñ yeneen ba jox léppam ci islaam ak ñoñam ak saaba yaak soppeem yarax gërëm sëriñ bu mag bi sant koy béral te di ko wax jaajëf borom Touba borom liggéey ba war da jépp gox ma dellu sot samay di jaale jënd daaju far lelax te jël ko yit fas yéene sadd wayu jar wutal ko tax rabbee ko ay baati nga lam doroñ ko koy per yu melax soobee ko ay caqi wurus yu sell nes nesi na ndox day ràngal ko bër ko mbër di sang bopp mat sëkk mbër la def ba tax ku nekk jéema sadd way jagleel ko sang booba ndax day saabiqun sadiqu doon sa duuxu loolu maa ko wax moo sëqi wa ginar te sànni séet bu far ko fay tabax da doom na foñ bi wer dunyaa ji ak lu cay sërëx masti la buur masti buur a jëm ci mooy xalaati baa mu cay tëmbëx daa sell sell jëf xolam ba sell set ba xëy me ndax jëmbam ja nekk sell laa kon lépp taaru bay nerax bu jub ne woon jàllaa ba kon sob na ko sol te wey ca sax dëtam ci géej ji raw sungal ci géej ji yemu mustanax di sang bopp dey na ci gëm yàlla di woy torox ak jaamu rekk moo ko ñor suunam sa moom la jàpp tex bibbante baa di coow xamul lu dàqu til njëriñ du wax xikam ya na làmmi ñam du tiitoroo ko daw di wax xikam na làmmi ñam di tiitoroo ko daw di ñax xam-xam da koy puukarewu xam-xam la sax xam-xam la sax mu la géej la baama ne weesu na leen ci xam ne fa jàmbaar ga gar la may niru ci dëgg ma lëg ñeme du lox tiit loola naama yaa ji garta sànq biir xare yu bax jant la woon ci ak kawe leeram nga leer la guy bërëx ci penku ak soowu itam gànnaar ba saalum ya lerax daa mel na weer foo geesu gis ko leer nga jolli comme melax sotti la leer bu nàññe yow leeral sa yoon nga woy tëfax daa mel na géej ku koy jege mu baaxe lay wurus ci sax ku yàlla def mu koy sori mu may la jaara ciy melax ne gaa yu baax yeneen yoroon ñarte na loola téye ko sex te lañ amoon roppi na leen di wéy di dem te lañ amoon roppi na leen di wéy te duñ ko dab li tax taalibe suñ Bàmba la woon moom rekk moo ko ñor ba tax peppam lakar lay sungu fas yéemu mu lax ci ruy te sex kooku yi ma lay junj ba tey Omar la woon ci bi ndax bu suñ bi doonoon ndox ma ne daju na seey moom mooma ndox kooku yi ma lay junj ba tey doomu nijaay la daam la ndax moom ak sëriñ bi benn lan kookaa di kan naa la ko wax sëriñ ma sàmba kandi la jant bu fenk biir ma raf tedd ga ak nga nel da koy na ko bàkk fu mu fi dox baaxoo defar tafanq bew jëlee fi banje ak kurux nooy wàtta def xéewal yu rëy yu ñu teral te dañu jox doonoon ko woy ni ñépp naw ko téeje moom ba duñ sa rux dogoom nga ak laabiir ga yéeme woon na lool yaatu fa yax wajhan bi wajhin moom nga gis yonent ba rekk doy na sax ak cër bu màgg ak ndamu loola dayul ñu dellu wax alasratul mubassaruuna bil jinaani moo nga sax ci seeni biir bokk ca way murit bu wér moo ko ko jox nitug jinaan nitug nga neel jant la weer bu daa fi dox gaynde gu daa saafante la waamelu waame la woon bu bari ndox penk la siñ penk te siñ ma sàmba kan ni nit ku gis ku bég te sax xolam di bég sedd ca kuy fu mu toll reega feeñ mi sëriñ ma sàmba géej la bokk ma ne su ko jeexal ba tax day tànk dem ka nen ne waat li mu soxla tuuru fax ma yem fi ñaan borom bi dolli koy ngërëm di ko jox na taw fa raw da toom bu yërmandee fi doon fi dox xasiida gi maa ngi ci roy ci asmaa yi ma doon fi wax sawtu safiiri bulbilin ma jombaloon waykat ya